yoro mbir wele mbir la ci xam wara fonde doy na seede cheikhu alfay ki ñu doy alfa mbir la yoro la wele la ci ko xam wara fonde doy na seede cheikhu alfa ki ñu doy alfa la yoro la wele la ci ko xam warafonde doy na seede Cheikhu Alfa ki ñu doy Mam Alfa Alfa mbir la yoro mbir la wele mbir la doy na seede Cheikhu Alfa ki ñu doy Alfa mbir la yoro mbir la wele mbir la ci ware fonde doy na seede cheikhu alfa ki ñu doy alfa mbir la yoro mbir la ci ko xam mam alfa doy na seede cheikhu alfa ki ñu doy mam alfa alfa la yoro mbir la ci ko xam mbir la yoro mbir la wele mbir la ci ko xam wara fonde doy na seede cheikhu alfa yi ki ñu doy alfa mbir la yoro mbir la wele mbir la ci ko xam wara fonde doy na seede cheikhu alfa yi ki ñu doy leer na yàlla leer na yol neen Maodo Malick ak ni mu doy maam alfa alfalataale mu di wey dem ba ba tey kon fi ci gaaya fi la taale la sey xoog la ca des Maodo nee na suñu maam alfa ko tuuf leer waa ji leer na yàlla leer na yónneen Cheikhu Alik ak ki mu doy. leeri maam alfa la taale mu di wéy dem baba. kon fii ci gaaya fa la taale xaala Cheikh ya ca des. Maodo nee na suñu maam alfa ko tuuf leer yi dul ala seyxoog la ci gaaya fa taale xaala seyxoog ña ca des Maodo nee na suñu leer yu dul